di ñas maayam leer na sunu coofel ci moom foor na xam-xamam bahit wér na way leeleen ma sëñ haadi bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëf mbokk yi seetaan diine ji tv ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaara amaan mbégte kontaan te dellusiwaat ak yéen si seen émission laaj ak tontu ni ñu baaxoo di ko def ay bés yu jot ci waxtu wi li seen émission laaj ak tontu ngeen di ci àndal al waye di contane lol ci ñi nga xamne abonné wu nañ ci seen bi ndax doole ji ñom la yeen ñi nga xamne ñi ngi doga yex ci ci seen bi tam bu leen faté abonné wu lolou mo leen di permettre sa bo leen duggé ci sa bu ñu duggalé vidéo ngeen bok ci ñi nga xamne ñëk jot sa bu ngeen duggé ci seen bi rek xol seen droite wala seen jor di ngeen gis mbind mu rouss mu fa nek rouss bobu ngeen di laal su ngeen ko laalé rouss bi dem rek bok ngeen ci seen bi lepp lu ñu dugalati ngeen bok ci ñi nga xamne ñom ci ñëk jot serigne bi ma ngi lay ziar bu baax baax di la ndokkeel yow di la ñaanal jamm ju sax dak yalla defal lako defal ko mi julit waye tam xamna naa laata ñuy yegg ci laaj ak tontu rek ci teunk bu gatt ci liggey bu am solo bi nga xamanteni yang ko doon amal ci aduna wërngal kep yang ko amal ci aduna wërngal kep waye dafa bok ci benn bo xamanteni momi tam yang ko sumbon fele ci dekk bele di Ndofane nek ci diwan bu salum mu di juma jo xamne juma spécial la ndax bu ñu xoolee foofu la seen Ndofane bokk na ci jumaa yi nga xam ne wala boobu mooy jumaa ji nga xamante ni sax mosul fa am jumaa joo xam ne macha allah méngoo na ak jamono euh, dëgg dëgg loole nag yaatu na ci dëkk yu ñu koy def waaye mu mel ni bu Ndofane bi moom moo taxaw pour pare ñu war ko intégré ji kon ci tënk bu gàtt rek oustaz boo doon ñuy naatal ci jumaa jooju nga xam ne taxawal nga ko ca Ndofane te le 16 décembre incha allah ñu war a dem intégré ko waaye itam boo ñuy tënkal rek jumaa jooji ci commencement baak fa mu toll ak euh, loo ñu ci mën a leeralal lu ndaw ci jumaa jooji nga xam ne moom nga taxawal ci Ndofane ginnaaw na yóbbu saas alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatihi alxaatimi sayidina muhammadin alhadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn diine ji tv di ko wettalikoo maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ci seen sant ci seen jëmm nuyoo bi gën a tedd gën a sell muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di dellusiwaat ci kartanal yàlla fas yéene ànd ak yéen. seen émission bii di tontu laaj yi nga xam ne jot nañ ko ci semaine yi passé mm-hmm. bët bu set ne dimanche bu jot ñu jéem ci am luñ jukki feeg ba ko yàlla di jeexale mm. pour yegg si ci sa laaj bi nag jumaa ji ndoofaan jumaa yi yàlla la yàlla dogal na ñeenti at jëm juróomi at ci gannaaw lañ ñu joxoon place booba mu doon place boo xam ne bu naqaree defar la ndax dafa nekkoon kàmbu waaye ci baax ak yàlla dimbali ñu ba ñu ko sëkk bi wax ne dëkk yi wër Ndofane yëpp ñoo ci jàpp diggante Koutié Kër Ngada ak ñàppa sañ ci Ndumbe ak yeneen dëkk yi nga xam ne wër nañ ko te suma ko doon lim tamit du jeex kenn ku ci nekk tuur nga ci sa ñaq ba yàlla dogal ñu sëkk ko lu ñu yàlla wër sëgal nag ñi def ca lu ñu yàlla wër sëgal ñi def ca ba mu sopp nekk étage nekk ñeenti soroor ji nag dafa war a nekk dafa ànd ak complexe dana ànd ak daara alquran joo xam ne dañuy jàng di mokkal ci at yu néew incha waaye daara ji tamit maanaam jumaa ji dana ànd ak franco arabe bu ñuy mën a jàng ba am bac incha allahu rabbi waaye daara ji tamit wala jumaa ji tamit dana ànd ak majlis mooy ni daan mag ñi di jàngalee seen téer yi daree ca laxdari ba usuul war a mën a commencé ajurum ci wàllu naxu ba ci balaaga waaye war a mën a commencé luxa ibnu duraydu ba soara u su paree nga def tafsirul quran ñu jox la sa diplôme danañ fa teg koo xam ne dana mën a matee loola lépp ci kartanal yàlla kon daara ji jumaa la waaye daara la mm-hmm. bu ñuy julli ci suuf ci kaw gi mooy nekk jànguwaay yàlla dimbal nañu tabaxal nañu fa loosement wu sëriñ daar ba fa war a nekk mm-hmm. ak ña koy jàppale ca daara ja mm-hmm. kon lol nak fas nañu yéene ubbi ko le 16 décembre. ci allah aljuma ci cardinal yalla ñun nak dañu baxo juma juñ tabax rek ci dëkk wala ngi tabax ko ci gox dañuy seet gox boba kan mo fay lumière l'islam ku koy liggéeyal liggéey bu fess bu ñëpp nangu kër mana mëna a bokk wala tarixa bo mëna bokk wala ci sax dañ lay dara jaale yaay ubbi jumaa ji bis booba nga jiite ko. te ku tudd ndoofaan sa xel daj bàyyi laa ji Dramé. Mm. di jantab lislaam tabaarakallaahu ci xam-xam. ci njub ci ragal yàlla. formé ñu bari ci wàllu diine ñoo ñooñu nekk ay jant yu tasaare diine. Mm. moo tax bi jumaa ji pare moom lañ dara jaale mooy ki ko war a ubbi. te ku tudd bàyyi laa ji Dramé. Eh, tabaarakallaahu sa xel daj sëriñ xadda hmm. muqaddamam la ku ko tudd tamit ku ko tudd tamit sa xel daj kër Seydil Hadj Malick hmm. kon moom moomu lañ dara jaale bis bi buñ ca yeggee moo koy ubbi dem naa ba gisee ak moom tamit mu rafetlu ko lool bi ma koy ba ma fay dem keroog laa ko door a gis sax mosuma ko gis mu xamal ma ne sa waajur sama xarit la woon mos na ànd ak moom dem di photo hmm. yàlla dogal ñu fekk studio ba tëj kon li yonent bi ni daal njekk rek di baax jëmee ko ci rek jëmee ko ci nit ñi rek boo dajee ko xam ne xeeyoon na ko baax na bu ko dajeewul yow mi ko joxe nga xeeyoo ko waaye moom nag mañ ko jox dafa fekk moom mu xeeyoo ko ci xam-xamam ak ci njubam ak yàlla keroog bi ma koy wax ne ko yow laa yéene nga ubbi jumaa ji keroog laa ko door a gis musuma ko gis du ci tale du ci du ci dox dajeeg moom waaw waaye ñun kuñ dégg na liggéeyal nga diini rek bu suñu oto ba jaaree ci sa yoon wa rek mm-hmm. danañ fa jaar. fasanteeg yow kóllëre. Mm. incha allah. incha kon loolu la sées la incha allahu rabbi. Mm. Eh, moom lañ ko darajaalee mu mat ko sëkk ci xam-xamam ci mbaaxam ci njubam ci ragal yàlla. Mm. nag loolu la sées la ñu ngi woo jullit yëpp ci bis boobu. Eh, mayuma kenn ngànt rek. ñu bokk fa julli incha allahu xalifa bi dana fa teew. njaboot gu bari tamit danañ fa teew ñu yàlla may ñi am jot. ñu amul jot ña fa ñu am jot nekk fa wutu leen fa kër yëpp ci seen gox ya foofu tamit ñëpp nañ fa teew ndax bis ba bisu ñëpp la bisu lageen la bisu ndóofaan la bisu saalum la bisu ñëpp la hmm. suñu ubbee jumaa ji ba ngoon na ngi def xadara bu mag ci diggante boo wasifa ak xadaratul jumaa buñ ca bàyyee ko danaa def waxtaan hmm. ci diine ji jëmale ko ci jullit ñëpp incha allahu rabbi kon la sees la allahu rabbi le ca ndoofaan waaye ni ma ko waxee rek noonu la ñi nga xam ne am nañ jot mën a ñëw teewee si ko teewee si ko ñi nga xamante ni itam jamono tënk na wala benn saxaaru poste ku mayu leen ko bañ mën koo teewee si yéen xaar leen ko incha allah seen organe de presse diine ji FM TV dinañ ko def direct ci ñetti rajo yëpp ngeen ànd ci ñun waaye biñ ci noppee itam émagé danañ leen ko wan fii ci diine ji TV dem soom na yàlla jërëjëf Oustaz baax daal mooy li am solo te it macha allah wax dëgg yàlla euh, mënoon nga ne ubbite bi dañuy jël ku tudd ku sant Ñas euh, mu jiite ko waaye déedéet euh, da nga jëli ku sant Dramé bu la neexoon it nga ne dañuy jël koo xam ne ci kër gi la bokk mu jiite ko waaye tamit nga ne déedéet donte kër yëpp benn la nga ne dañuy dem jëli fa nga xamante moo di ca Tiwaawan muy wane ne kenn ku ci nekk rek dina Tiwaawan yëpp benn la dëgg-dëgg yow itam njàngale mu mag nga def foofu njàngale mu ama am solo jërëjëf yal yàlla dëgëral sa taxawaay bu baax a baax a baax a baax a baax ndax am nga solo lool ci diine ji oustaz ñu jëkkanteeg waxtu wi ñëw ci wàllum laaj yi kii nee na dafay laaj oustaz lu lu ñu ne fen wuy defar moo gën dëgg buy yàq nan la koy lislaam di jàngatee ndax dafa jàng ci laxdari yu euh, alkasi bu fen waaye itam naka noonu itam kulil xaq wala kaana muran kon fen boobu wax boobu nan la koy diine di jàngatee loolu de waxi olof rekk la waaye fen moom damay wax toujours bu tabaxee ab dëkk dana ko tas waaye dëkk moo dëgg moom bu tasee kër dana tabax dëkk bu tasee dëkk dana tabax réew bu tasee réew dana tabax àdduna hmm. kon dëggay dëgg ak lu mën a demee waye l'islam mom du encourager fen mukk chariatul islaamiya nak maye na ñetti fen ab julit fen ko te duñ ko ci bindal bakar amna ci fen yoyé fen wo xamné dafa war boko deful sax da nga am bakar am ci fen ye ya fen wo xamné dafa dagan am ci fen yi fen wo xamné sop, dañ ko sopp fan wi fen wi nga xamné dafa war ku ñu dàqe te buñ ko jàppee faat ba kanam wala buñ ko buñ ko jàppee yàq alalam ñu ñëw di la ko laaj moom de ñu ngi ko topp ak suñuy oto wala suñuy moto num jaar nga sànni leen ci yoon wu wuuteeg wim jaar ngir sowe kanam wala nga sànni leen ci yoon wu wuuteeg jaar ngir sowe alalam kon fen woo xam ne day sowe alal wala muy sowe bakkan woowa fen dafa nek di lu war waye fen wo xam nak nag wu bax la yonentou bi diglé ko moy ñaar ño xam dañoo yaqku wante te kenn ku ci nek da nga nek sa kumpa ak morom nga sol dal dem ci diw ne ko diw di la baye ko legi akala bëgg bu baax rek lay wax ci yow li nit ñi wax yeb dara wëru ci Lambu sa pos jox ko ta fekk na koko sax yeguko da nga bëgg ñu jubo rek nga salat sa dal demat ci keneen ka ne ko li ñi wax sa digganteeg diw da dara amu ci akala bëgg fofu la baye ko legi kaddu yu bax rek lay wax ci yow moma jox lin na la ko jox mm-hmm. mu ne nga bal ko ak nga dox ci seen diggante bañu jubo lolu fen la ay fen wu baxa baxa bax la mm. ngir la cey ñaar di defaro mm. bu ñetteel bi nga xam ne nag dafa dafa dañ koo sib sax mais dagan na mooy fenal sa soxna rek maanaam soxna si ñëw na rek nga bëgg mu gën a toog nga koy dig rek yow rek laa bëgg yow kay duma la wutal ñaareel yow mii kay tabaarakallaahu fi nga toll ci man léegi-léegi sax bu ne la liggéey bi nga yennee nga wane sama CV bi man kat gaa yi yaakaarloo nañ ma danañ ma jël par sàngam bu weer wi dee danañ ma jël ta yaakar na dañu ma ca fay nangam leg leg sax timin nga romb dara ne ko mako mom wala fi lay liggey jublu ca lu yok ca feelam ak yaakaram mu gëna mëna tok waye fekk na buñ ko topé bam sas yoy yooyu yëpp ay la yooyu nak wax deug yalla bokku na ci fenn yi nga xamne dañ ko sip waye dal amna ki nak gor ño xamne fenn rek. bu ñu sañ jabar di fenn rek wallahi amna na ci ñoo xam sax bañuy ngor lañ commencé di fenn wallahi su ko defé nak fenn fenn soxna si ba nga xamné ne noppam yaa nga fess ci loola bu ñëwé bu huté li nga waxon rek bu ko mm. gisul rek mëna andi problème léeg le nit ñëw fenal fi nit ba takkee ko fi yobbu ko bitim réew wax ko li ngay liggéey wan ko nangam mu ñëw ndeke li ko doon wax dara amu ci mu euh, tas sa yu ci bari mi ngi yaqku ñaareel bi boko topé tank ya rek fenn wuñ sosoon ci ngoro wallahi la ta xam nga né nit ki mëna fenn ba am soxna waaye kenn mënta fen ba yore soxna. déedéet wallaay waaw dëgg rek ci lañ mën a yoree soxna. kon nag ñetti fen yi bokk na ci ñi fen yi nga xam ne eh, borom xam-xam yi tudd nañ ko ci téere yi fen ngir jubale ñaar. fen ngir sowe bakkan baa alal. fen ngir fenel sa soxna ngir mu gën a jàpp sëy bi ngir bañ mu yàqu waaye yooyu nag bu bëree dafay mujj soof te bu bu bëree tamit la mu yàq moo gën a ci li ci aju. Mm-hmm. waaye yeneen yi ci ñu naan fen wuy defar moo gën dëgg ju yàq waxi caaxaan rek la dëgg du yàq mukk mm-hmm. dëgg bu yàqee kër dana tabax dëkk mm-hmm. bu yàqee dëkk dana tabax réew bu yàqee am réew dana tabax àdduna loolu rek mooy li wér Cheikh Ahmed Tidiane mm-hmm. jërëjëf oustaz macha allah ci jàngale bu yaatu moomu kii itam dafay laajte oustaz nee na euh, maanaam euh, lu ñu ne ñaar suñu amee problème maanaam ñaar suñu meroo dañu ne ku njëkk a génn àdduna yaa nga safaree xaar sa morom est-ce que lolé lu deugal la waaw day am euh, shari'atul islamiyya dafa dul beug ñaari jullit wante lu upp ñetti fan kenn ku ci nek won sa morom sa gannaaw ne ko baax na te fekk seen ñaari baax na yi dara néew ca waye dina am tongo yo xamni ne sharia dana ko nangu su fekkee nit ki nitu bidala nit ki nitu fitna la ta ànd mom ci jikom kenn mënu ko Euh, ndax bu ngeen àndee la muy yàq moo gën nga jéem a muslu ci aw ayam téye sa bopp sa ñàmbur ci moom ndax loolu ci anamu sharia la ci nga ko daggee woowa duñ ko bañ mais dagg goo xam ne da nga koo teg ci sa bakkan moom tamit mu dagg la dagg goo xam ne da koo teg ci bakkanam yéen ñaar ñëpp ngeen warante gannaaw lola mom moom chariatul da ya, wax ne bu passé ñetti fan rek ku ci ñëk dé bu ko yalla jéggalul mëna dem safara keneen ko bu dé fekk ko ci yalla yalla musal mu ci amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin jërëjëf saas ki da fay lacc mom itam néna euh yan ak mo war way jur ci dom bi waye tam dom yan ak moo ko war ci way juram ak yi war dom ci waajur hmm. dafa bari ba kenn mënu ko teunk motax yalla bim koy wax sax dafa andi nakira واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من وبالوالدين احسانا أه. احسان نك كان خمون نيم تولو تي واخ تي جيف تي كومبارتمان تي باس باس كين نكو كو مانا تنك خمون غير بريغا waye nak ak yi nga xamne mom wajur yi amal nako domam man nañ ko teunk moy lu mënu rek nga manal ko ko amul benn dom bu mëna utal kon àq ci baay mu outal domam yaay ju bax àq ci yaay timit mu outal domam baay ju bax fexel ba amal sa sa sox sa dom ji da baay jo xamne bo ëllëgé buñ nako ki moy sa baay du sëgg way fexel ba outal ko yaay jo xamne bo ëllëgé buñ nako diw mii sa yaay du sëgg bu yàlla dogalé nak bu gën démé ba wara am rapport dafa am àq yo ko wara amel ci ñaan yonent bi wax ko waye ku ñëw rek xëy ànd ak sa soxna am rapport ta ñaanoo ñaan yooyu saytaane mën na caa laxasoo mm-hmm. te su boobaa doom bu ko saytaane laxasoo ci biiru yaayam dana nara dana dana naqari teqaleeg moom mm-hmm. moo tax alquran ne wa shaarikhum fil amwaali wal awlaadi wa idhum wa maa yaiduhum shaytaanu illa ghururan mm-hmm. moo tax ñu bëgg bala nga am ak moom rapport nga ñaan allahuma jannib na saytaana wa jannibi saytaana maa razaqtana ñaan yooyu yonent bi recommandé ko bu deme ba eumbu amna duñ la sante nga koy ñaan diko tafli ci euh, diko ray ci biram bi mm-hmm. ta bañ ko def andi naqar ci dir boba mm-hmm. bu deme ba yal dogal mu mucci tokantal mi don yonent bi jangale timin nga fexé defal ko ko nak mënu ko defal bopam mm-hmm. waye ñettel bi nga wutal ko turu rafet ndax tur day jeexital ci kiñ ko tuddé bu sa loxo jotee sa gannaaw nga rendil ko xar mo xam góor la mo xam jigen la boko amul nga rendi bay ci bisab bis bi bisab juroom ñaarel ba soko amut nga aj ko bam mu dellusiwaat ci fukki fan ba ak ñeent soo ko nga aj ko wat ñaar fukki fan ya ak ben yoy yeb na boko ci mënul wacc na la joxel tur rek ta nga bàyyi ko bu liggeye mom mbaa yow nga ko am nga rendi amkar am xar jublu ci tuural ko dere ndax yonent bi dafa wax ne ku njur ku nekk dañ ko tay la ci gattam ngentem ba deret koy lo am am importance la mm. bu ba mag ya amé ak yar ko waaye tamit bu demee ba toll ci fu muy jàngee nga dugal ko fexe mu jàng alquran. loolu tamit lu ci am solo la man téereb yàlla bi mbaa mu man ko mbaa mu man ca. nga fexe ba mu ràññee ay farataam ak i sunnaam nga tàggat ko ci yoonu diine bu demee ba nekk góor loxoom jotul gannaawam nga dimbale ko teete ko jàppale ko ba mat a takk soxna. bu dee jigéen nga dimbale ko ba mën a dugg néegab sëy yii nag boo ko xasee def àq yi waroon ci yow wàcc nga jeex na. waaye doom nag moom àq yi war ci baayam wala mu war ci yaayam. dafa bëree bëree bëree bëri ba kenn mënu koo tëgg. Mm-hmm. na ko xormaal na ko respect. Mm-hmm. na ko fonk na koy teral na koy dimbale na koy màggal demeet yooyu yëpp dafa bëri ba kenn mënu koo tënk mais yi nga xam ne bàyyi ko yoreel doom wala yaay mën nañ koo tënk ci yooyu nga tënk la ne fii la xem mm-hmm. mais nag doom moom kenn mënta wax ne ay xàqam ci waajuram fii la xem mm-hmm. dafa bëri ba kenn mënu ko wax wallaahi ndeysaan leer na xam naa yóbbaale na laaj ki doon laaj na maanaam balaa ngay joteeg sa soxna gan ñaan nga war a ñaan indiwaale nga ko waaye tam uh, nga yóbbaale rek ni laaj bi kii dafa wax ni maanaam bu fekkee am nañ sa doom gane si na àdduna uh, yan uh, ñaan moo gën wala bokk yuñ ko war a takkal pour mu gunge ko ci ak dundam gannaaw bu mu ganesee àdduna waaw am na ay baat ne audu bi kalimatillahi taammaati min charri ma xalaqa ak yu mel noona hmm. jëlee nañ ci téere yi ku mel ne Abdoulaye Ibnu Omar hmm. dafa ko daan takkal ay doomam buñ demee ba màgg mu jàngal leen ko ñu koy léemoo mu tekki ko hmm. kon nag lépp luy xeeti muslaay nga takkal ko xale dara nekkut ci waye bu demee ba man ko nak man diko muslu di jang eh, nga tekki ko lolo moy lu gën su fekke du ko man muko nak bu gisé terre yi bari suñu africain yi ñi ci mëna a dafa dul bari motax nak nag far ñi bàyyi len rek leen ñu ñu ci bari bu xalé bi mata guta jang nga takal koy terre yi muslay bu demee ba mën a nga jangal ko ba man ko wax ko heure yi koy jang suba ngon ta nga tekki ko non lañ daan def ñoom xam nga dara ëpp ci doole qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin naas ak ayatul kursi yoog laqad jaakum ayaat yu mel noonu muslaa yu ama am doole la yooye yëpp bu la neexee mën nga ko koo takkal bu demee ba man ko nga ne ko dee ko jàng lim bi dee ko jàng heure bi nga tekki ko su fekkee du ko man nag bu yeboo nga bàyyi ko téere yooyu rek nag mu takk ko ta nga protéger ko su boobaa mën naa dugg moom ci wan ak comme xas nañ ko ëw dara nekkatu ca te mu cay daw solo bu baax a baax Cheikh Ahmed Tidiane. Mm-hmm. jërëjëf oustaz macha allah kii itam dafay laaj oustaz nee na ci mbirum takkum soxna maanaam lu ñu ne xeet bi ñoo war a takk exemple njóobeen njaayeen la war a takk njaayeen njóobeen la war a takk yooyee ndax lu alxuraan indi la wala alxuraan moom lim xam rek mooy boo waree takk soxna si nga listixaar seen diggante bu war si dëppoo rek baax na. waaw nit ñëpp koo ci dàq rek. ci ben mam bu jigen la soxé ko ak ben baay bu jigé bu góor hmm. ko fi dak mu né nit te nit du dara lu dul la leen seigne Abdoulahat Mbàkke daan wax moy ku bopp ba nekk ca kaw tank ye ya nek ci souf mu né lo rek moy nit hmm. képp ko gis booba nek ci kaw tank ye ya nek ci souf boko daké ci jenn mam ju lay muy di wat ci jenn mam bu jigen muy hawa wallahi waaye nag gannaaw bi ñëpp bokkee ak soqeeku waay ñiy wàcc par ndoor di ñëw am na ci ñoo xam ne seen askan wa na meloon démb ca aadama ba bis ki tey noonu la mel dara yàquwut ca am na nag ci diggante bi ñu yàq seen askan mm-hmm. ñooña yàq seen askan nag dañuy bañ ñiy jaxasoog ñi yàqul seen askan mm-hmm. ndax ñi nga xam ne tey bañ soqeekoo ci aadama muy néegu leer di néegu xam-xam di néegu njub di néegu ragal yàlla mm-hmm. ba bis ni ki tey bu aadama dekki xaatoon mën na leen a baayoo mën na leen a maamoo ndax na meloon rek lañ mel mm. waaye am na ci diggante bi nag ñoo xam ne dañoo yàq seen askan ci yu kenn xamut yoo mm. xam ne yàlla gërëmu ko mm-hmm. su boobaa nag yooya dëgg-dëgg boo demee bay ñaani soxna mm. teggi leen a gën waaye ñoom tamit bu ñu ba balay ñaan si nga teggi leen mooy gën ndax yonent tamit jàng na lu mel noona nee na yéen ñi nga xam ne yéen ay góor ñi yore seeni doom yi maa ngi leen di sant képp koo xam ne dafa ñëw ñaan ci leen soxna ngeen gërëm jikkoom ak diine may leen ko kon déggee nga ci ne boo gërëmul jikkoom bu ko may uh-huh. ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluquhu fa zawwijuuhu uh-huh. ilaa takun fitnatun fasaadun kabiir aw kamaa qaal kon na bam ne ba mu ne diinahu rek jikko dugg na xuluquhu lu mu ci nam mooy mu am métier ku lay ñaan ci soxna am diine boole ko am métier mu mën a yore sa soxna si sa doom ji uh-huh. may ko waaye su fekkee ne mi ngi amee métier te amul diine ju baax bu ko may sa doxna su fekkee am na diine diine ja rafet lool mais amul métier mu mën a yore sa doom ji yaay yaay mujj bokk yore leen loolu tim bu ko ko may kon loolu wax na ko waaye tamit noonu yonent bi tànnaloo góor ñi ñu war a may soxna noonu tamit la yonent bi tànnaloo jigéen ñi nga xam ne dañ leen waroon tànn dafa daan wax ne ixtaroo li nutafikum fa inal uruq dasaasun yéen góor ñi dee leen bàyyi xel fi ngeen di denc seen toqantal mën yi mm. ñu ne ko lu tax mu ne siddi day wàlle mm. boo duggee ci néeg boo xam ne bi àdduna sosoo ba léegi fen lañu leen xam munoo ñàkk xam doom juy fen bu fekkee doo néeg boo xam ne bi àdduna sosoo ba léegi sàcc lañ leen xam boo ca duggee munoo ñàkk xam doom juy sàcc mbaa sët buy sàcc wala nga dugg ci néeg boo xam ne bi àdduna sosoo ba léegi ci liñ leen xam bañ soqee koo ci aadama yàq nañ seen bopp ci fecc ak ci yeneen yi jikko yu suufe yu kenn xamut yooyu yëpp sànni nañ ko fële topp poŋetam àdduna mm. ñooña bul dugg ca ñoom booy ñaani bu bu la dugal ci sa biir tin booy maye. Mm. kon ñëpp a bokk soqeekuwaay waaye soqeekuwaay bu sell booba am nañu ko garde ba tey. waaye soqeeku waaye bu sell booba am nañu fi yàq seen ci diggante bi seen bopp mhm. su boobaa nag teggil ñooña da nga dem ci ñi nga xam ne ñoo ñu sell ña ndax alquran dafa wax ne wa tayibaatu li tayibiina mhm. wa tayibuuna li tayibaat góor ñu baax ñi ñoo mérito pour denc jigéen ñu baax ñi mhm. waaye jigéen ñu baax ñi tamit ñoo mérito pour denc jigéen góor ñu baax ñi kon nag loolu da cee bàyyi xel moo tax li mag ñi di tudd nii Ah, jarta xeeb de am nañ ci am nañ ci ay preuve yu leer te boo ko seetee ci charia islamique gis ko ci fekk nañ bàyyi mbëtt yeeg mbëtt yi ànd uh-huh. ñi bàyyi bari yeeg bari yi ànd rek uh-huh. su boobaa rek ay am uh-huh. wallaay ndeysaan jërëjëf Oustaz maa ngi dégg ci benn waxtaanu al imam Hassan Cissé mu ngi koy wax benn waxtaanam béy bi meew bu nampee meew béy béy rek lay doon hmm. xarit noonu kon kenn ku ci nek dal la dem fam wara dem rek ki itam fay laajte oustaz nee na moom it euh, dafa nekk ci benn bërëbu liggéeykaay euh, ba kay bi nak beur bu yaatu la bo xam ñu fay dajé dañoo bari ñen ñi ñu fa nek amna ci ño xam dañuy jaay seen bop waye tam amna na ñu fa nek ño xam ne bokkuñoo ak diina euh, la muy rek moy ñom ñi nga ci diina ji lañu nek ban dëkkin la wara nek ak nekkee ñooñu nga xam ne dañoo dajee ci bërëbu kay waaw ak lañ rek ci ndor ndax nit ku nekk rek moromam nitam ñetti ak doxna na seen digënté bu bëré ba bëri bu néwé ba néw ben la ki nga bokk ak ci askan bokk diiné bokk dëkk wala ngeen bokk di liggé ñetti ak doxna fa ak place bi ak diiné ji ak deret su fekké da ngeen bokk di liggé té ngeen bokk nekk julit ñaari ak ak diiné ji ak ak place bi muy ndor gi su fekkee ne nag bokku leen diine bokku leen dere bokku leen askan benn ak moo fay dox mooy aqi place bi muy mm. dëkkandoor gi ndax dëkkandoor bokk fu ngeen ni fanaan bokki quartier ca la waaye bokk fu ngeen ni liggéeyee tamit ca la mm. su boobaa nag da nga war a fexe ba sàmm ak yooyu yëpp moom daal boo ko mënee dimbale dimbale ko bu feebaree seeti ko boo ba da nga koy sutural boo ko nga dimbale ko moo bu nekké ci khat khat nga dimbalé ko bu bu ajoo nga lay bir ko yoy yep nga dox ca su fekkee ne nag yooyu yëpp yaa ngi koy laay biir te loolu mënta jëriñ te place place am mooy yàlla la mom lañ fay gën di def ah, ah su boba nag yow li gën moy nga nga nga nga fexé ba tong bo ba sori ko mooy gën ci yow ndax liko moy lu fa wacc ci musiba ak mbugal yow momu do ci mëna mu ci cheikh Ahmed Tidiane uh-huh. jeuf oustaz kii itam da fay lacc momit neena euh manam fa ñu nekk ci bitim rew dañuy fay assurance assurance bi ñuy fay euh pour sen jëm la ndeg yalla tere ëlëk bu fekke dañuy fa génn aduna ñu man leena dagalé bi ci assurance bobu nga xamne mom lañuy fay est ce que l'islam dina ko nango assurance yi ñi def mo xam di assurer sa jëm wala nga assuré sa njabot wala walangga assuré sa bâtiment bi wala nga assuré sa auto bi dundu bi moñu ko obligé mais l'islam ndax dafa am lu ñuy tuddee dafa am timi lu ñuy tuddee te bépp pas-pas wala jëflanté bu fasu ci gharar wala mu fasu ci khatar sharia da koy dakk buñ né khatar moy luñ holuhut ak muccëm buñ né gharar moy luñ holuhut ak amam ndax yow bo jëwoon tay nga bindu ci ben assurance ñi wax la ne wër wu dé li ngay fay ci sa auto mba ci sa jëm man nga caa nekk diko fay diko fay diko fay ba wéré hatta dara xewut xaliss bobu ñu lek man nga ñew timit commencé ben weer rek nga fay yalla dogal sa bakkan baye ko fi ñom ñi def ci yow lu mat lu jégué 20 millions mm-hmm. lool fuñ fuñ téggu mm-hmm. wala sa auto bi yang ko jënd bes di fay assurance ba xey jaay ko ta so def ben sok mhm. lola nga jox len fum mhm. deuk wala auto bi yang ko jëna ni 20 millions tawal mhm. ko ben wer def sok, ñu mujj faylaat fayat la lu tollu nona ta wax deug yalla yow ñaata nga fayagum ñaata nga duggal ci assurance bi mutul sax 50000 ba 100000 francs yoy nak fasus ca motax sharia nangou ko waye nak dundu bi moñu ko obligé su boba nak fo nek ta dundu bi laaj lola far force da ngay fexé nga dem jëfëndiko lola ndax fu melni fi ku fi dawal auto amo assurance a ah, lam lay coûté mooy gën a cher li doon daw ku nekk bitim réew timit uh-huh. amuloo assurance da am coono bu rëy rëy comme uh-huh. nag dund bi moo ñëw obligé la ko foog nga uh-huh. fekk si ko nga dugg ci buntab ad daruraatu tubiixul mahduuraat waa dara néew ca si am tijaan macha allah ma jootale wàlle sa nuyób nuyób sa xarit Abdoulaye Socé moom si wàllu assurance lay liggéey mu nga bitim réew mu ngi lay nuyu bu baax a baax kii itam Oustaz dafay laajte nee na euh, jullik salaatul tasbiya ndax dafa am heure wala heure bu la neex rek man nga ko amal Abdoulaye Socé ne ko ñi ngi koy fay. di ko sant moom tamit di ko gërëm. maa ngi koy jéggalu sax barki démb rek laa door a yëg ne waajuram wu jigéen dafa wàcc liggéey. Amadou Ndiaye bàyyee ko bi ba ñëw fii di ma gane si. moo ma ko wax. ba naa ko naa ne dinaa ko woo sax pour jaal ko ko ki démb laa ko door a yëg. Mhm. ñu denc ko fële ca Koungheul. maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla wàccee niiru ngërmande wàccee tamit niiru yërmande tamit ci kawam defal ko mboolem niiwi Eh, salatu tasbih man nañ ko julli ci waxtu dagana nafila rek ken du ko julli fek jant baangi fenk ken du ko julli waxtu wi jant bi sox sib nañ ko ko julli ci mazhabu malik gannaaw takusan sib nañ ko ko julli gannaaw bi jant bi soye njëkk timis sib nañ ko ko julli gannaaw ak fajar ñaar rakkaay suba boko ko ba pare da fek jant bi fofu sib nañ ko fa bu jant bi fenké ba paré tamit sib nañ ko ko julli fek ba jant ba di yëkëti ko yu dul waxti yi ma wax la ak fi imam taxawé di khutba yu dul yi foko fa rek baxna su fekkee dang ko julli muy guddi na nga biral fatiha jak sarwa mais boko yélo timit yaqku dara tu du jar tamit su jot bu fekkee dang ko julli jullee guddi bo xamé ñaar rakka sëlmalal nga indiwaay yenen ñaar rakka do julli beccëk nak dañ lay tànnaloo bu la neexee nga def ñaari rakkaa sëlmal bu la neexee tam nga def ñaari rakkaa jug taaya door a indi yi des comme ni ngay jullee tusubaar rek nga xam ne benn sëlmal rek lay am toujours ma wax ko nag gannaaw faatiha ak saar ja foofu ngay wax subhanallah walhamdulilah wala ilaha illa wala war fukki yoon ak juróom bu ko mooyee sest boo defati rek fukki yoon la mooy boo rukkooxee wax ko fukk boo siggee wax ko fukk sujjóot wax ko fukk toog wax ko fukk sujjóotaat wax ko fukk toogaat foofa mu nekk jalsatul istiraaxa nga wax ko fu fukk boo calculer yëpp mu dox la 75 ci rakka bu ne sàbbaale quinze lay doon mu ngoog muy juróom-ñaar fukk ak juróom waaw 75 fois 4 boo ko jëlee mu jox la 300. Hmm. noonu lay sàbbalee dox door a mën a mat bu ca manqué du mën a baax mu bàyyi ci xel bu baax noonu lañ koy jullee. leer dafay laaj Oustaz nee na dafa am ak euh, jafe-jafe soxna si jéego doon xulo euh, yàlla dogal soxna si ne ko su ma mooy jee yaa tax ma mooy su ma njaaloo yaa tax ma njaalo muy laaj ba xam en tant que jëkkër ban taxawaay la ci am ci xuloog sa jabar mu yëkkati kàddu yi jëmale ko ci te yow xamoo sax lu tax mu wax la kàddu yooyu yan taxawaay la ci war a comme moo xamul kàddu yooyu soxna ca wax ko man mii mu koy laaj na ti man xaw ma ko foog mu gën ma koo leeralal uh-huh, uh-huh. suma ma njaaloo yaa tax suma ma yaa tax uh-huh. lan moo tax ba tax moom mu tax ca loola loola man xaw ma ko foog mu leeral ko <laughs> bu ko leeralee ci laa koy door a mën a tontu hmm. wallaay hmm. jërëjëf Oustaz kii itam dafay laaj moom it dafa nekk ak uh, soxnaam nee na mu dañu luye nag benn néeg bu nekk dañ koy luyee yàlla dogal soxna si am na ñetti doom mu ñaan ko baat est-ce que su ko mayee baat moom muy jëkkër ji moo war a génn wutiwaat néeg wala dafa war a bàyyi njaboot gi néeg bi ah comme soxna see fekkee woon kay mooy génn hmm. waaye kay yow yaa moomoon néeg bi kay te alxuraan yow la wax nga dëkkal ñaara mën a am dañ koy delloo laaj bi ne ko su fekkee moom moo fekki woon soxna si mooy génn mm-hmm. su fekkee soxna see ko fekki woon soxna see génn mm-hmm. boo bokkee ca góor ña sëyi mm-hmm. te yow may la baat ah kon nag génn takk jëla sa dara ji rek sa costume bi génn ca biir génn waaw lu tax góor guy sëyi wóorut déedéet su fekkee ne nag moom soxna see sëy si woon moom mooy jël camisolam ba wala robbam ba su ko defee mu génn ah, waaye nag jigéen sëy sil góor moom la lislaam santaane moo tax mu ne askinuhunna min haythu sakantum mhm. yow nag boo ñàkkee fayda ba euh, def safaan ba yaay génn su fekkee ne nag moo la fekk si moom mooy génn mhm. Mhm. jërëjëf Oustaz kii itam moom it day laajte moom it nee na dafa nekk ak boroom këram jigéen la waaye nee na nekkin bi daal euh, maanaam borom kër gi jàmbaar la lool waaye julli daal xam ne daf ko xaw a sàgganee lool euh, moom sax bu ko yee fajar gi day jub moom soxna si julli waaye jëkkër ji da koy bàyyi ci lal bi su ko yee nag jàmm jeex na muy laajte ba xam li ñu ne nag jëkkër mooy dugal jabar aljana muy laajte dafa war a toog continuer di ko ñaax wala daf ko war a bàyyi xooli koo xam ne day jaamu yàlla mom sax yakana laaj bi bi ne sama jeuker jambar la waye du julli rek la yak laaj bi mhm. nit ta nek jambar te do julli xana day wax na yambar la mhm. góor ak yambar rek modul julli mod moy ko xamne mhm. yaangi nek ak sa soxna au lieu ke ñu joxon lako ko foo ko gëna mat war ko gëna mot ci diineem ji war ko ko yokal waye nga manki nekam yambar bam xeb sa diine fu mu mom gi sax dila jema ko jëkkër yi yambar la ko yàlla natto yambar piir moy gor gu dul julli man nak mom moy set nak na na waxtaan nak mom ci loolu su fekke dafa continuer ci ñak julli gi boy bo mu ñaan ko bar rek ndax la sayyiduna umar daan wax dafa ne wax ne diina ju xamul julli xamul cër mu ne ko hamul julli timit ku dul julli lo cër ci ben ci diina ji motax kérok bañ ko jame muy jité saaba yi ñi ne ak suba ñi ne ak fajar Holamu abi khira ba jam ko muy abu lulu aba jam ko mm. ñi leewu ko yobbu keur ga je sotte ku ca kawam mu hor ko ne day génn àdduna lam jëk laaj asallan naasu ndax nit ñi julli nañ ñu ne ko ha ah, gay julli nañ abdurrahman ibn awf mo len jité mu ne waaw kay l'islam ciir amul ci su fekke julli genn na ca kep ku ca nekk tamit do julli lo ben ciir gis nga yonent bi timit ba muy li mujjé mooy julli waaye waaye dee leen julli ku am jaam dee ko yërëm ku am surga dee ko dimbale maam xalifa ne bis salaati wal mamaliki xat awsa aqiral umri fan qadal isaaw bil a yonent bi julli la mujj dénkaane ak ku yor jaam na ko dimbale ku yor surga na nga ko oyofal mm-hmm. bañ koo teg loo xam ne ni attanu ko waaye yoreb safoor bëgg ko def ab jaam. yooyu ah. takk sa karawaat bi nekk ca gannaaw ñëw sax boo ñëwee doo ko nuyu. Ah. te fooy dem moo la fa yóbbu. wallaay boo bi ñëw togg lekk gi ba mu baax mel na mu war a mel nga ber ko mu nekk ca waañ wa. wallaay nangu séexlu ngaa bokk ak moom. yooyu yëpp lislaam bëgg ko. bi bil mama lii kii was salaati xad awsa. Hmm. axiral umri. Hmm. fan xadal isaaw. Hmm. kon nag jëkkër ju dul julli daal. nar caa sax nga wax wax mënul ci dara boo xeboo ñaan ko baat. Mm, mm. génn ci sëy ba. jërëjëf julli daal day julli kii itam Oustaz dafay laaj moom it nee na euh, tuubeen la maanaam dafa tuub dugg ci diine ji bees. Mm. waaye nag papa moom chrétien la. muy laajte ba xam ci àq ji dox ci diggante doom ak papaam ndax parfois papaam day bëgg ci moom pour mu jëndal ko sàngara est-ce que ji dox ci diggante doom ak papaam war na tax mu dem jëndal ko sàngara. waaw ci borom xam-xam yi am nañu ko nangu am nañu ko dàq ñi ko dàq nag ñoo gën a bëri. yéen a woon topp waajur ci lu yàlla xam ci lu yàlla santaane comme sàngara naan ko dafa xaraam mm. jëfandikoo ko tamit dafa xaraam kon tamit jaay tegtale fu ñu koy jaayee sax dafa xaraam jaay ko tamit xaraam mm. nit ki bu ñëw nee la fu ñuy jaayee sàngara nga ko demee ñaari koñ sa ndey joor yow moom am nga ci bàkkaar ne bàkkaar ba 100 la yow am pour cent mm. boo demee di ko jënd tamit da nga cay am bàkkaar te yonentu fa waxoon ne innama taatu fil maarufi kuy topp sa waa topp ko ci luñ xam mooy lu yàlla santaane wa tabi sabila man anaaba ilaya waaye nag koo xam ne du jullit yónnee la sàngara donte sa waaju la nga ne yaa ngi ko koy jëndali am na ci borom xam-xam yu ko nangu de mm-hmm. waaye ñu ci ëpp ci borom xam-xam yi dañoo dàq tamit jërëjëf Oustaz kii itam dafay laajte nee na ci wàllum asaka moom dafa gis ni fa mu dëkk euh, bu ñuy génnee asaka dañu koy jox euh, ñay génnee asaka dañu koy jox seen doom bu ñu ci jógee ko doo ko jox ñi nga xam ne ñooy mbokk yi leen sës moom moom la gis ca fa mu dëkk ñu koy génnee asaka que looloo tax a jóg asaka. asaka daal wax dëgg yàlla sawat sa doom bi nga xam ne mësooragul yaa ko war a dundal. war koo yore su fekkee dafa man ci cëram dafay manqué mënta liggéey mënagul boppam yaa ko war a yore. Hmm. li gënoon daal mooy sa doom ji nga dimbale ko comme mënul boppam te yàlla tax nga jël asaka yi jox ko ñoo xam ne nii ay jàmbur lañ waaye daal asaka joo xam ne du génn nii bi loolu tamit lislaam bëggut ko wax dëgg yàlla asaka deesut ko jox sa baay asaka deesut ko jox sa yaay asaka deesut ko jox sa soxna asaka tamit li gën ci boroom xam-xam yi ñi tànn ko bëgguñ ko jox ko ko jox sa doom donte am na nag ñuy wax ne bu doom jëm mësooree xam ne waratoo koo dundal ak yooya waaye yooyu yëpp daal euh, bu tollee foofa nga dimbale ko daal mooy li gën a sell da nga jël asata ga seet ñi nga xam ne ñoo ko nga jox leen waaw wallaay jërëjëf kii oustaz moom day laajte nee na si wasifa bi lay laajte est ce que bu bu mu timis ba noppi bëgg a wasifa euh, man na gàddu kurusam di dox di wasifa waale wala faaw toog rek waaw ci sartaab dàll ya muy doxee na laab fi koy dëgg timit lap bu yeggee ci jawaratul kamal mu toog rawatina perab juróom-ñaareel ba su ko mënut mu remplacer ko ñaar fukki peri salaatul fatihi yooyu bu ci amee dana yomb waaye xam nga suñ mbedd yi mbedd mu laab yombul de suñ dàll yi tamit dàll yu laab yombul de ah, fii nga mën a dëgg lu mat fukki mètre yoo xam ne dëggoo ko ci sobe hmm. ah waxuma ne xamul waaye daal yombul waaye yooyu yëpp na bu dàqooxee wirdo di dox comme ngànta am na fi nga jëm man da man da ngay da nga mën a toog da nga am ngànt wala ngay fa soo yeggee ci watu kamaan nga toog ba loolu amul nga watteeku ñaar fukki saat fàttee dara néew ca waaye sarta ba na dàll yee laab na timit tànk euh, fi nga koy dëgg timit laab te dox gi nekk loo xam ne lu mënta ñàkk la moo tax ngay dem nii ndax am na ñoo ànd ak ñoo xam ne mënuñoo xaar wala yaa ngi doxi loo xam ne mënta ñàkk urgent la. te ba bëggoo waxtu woo passé. su boobaa nga defee ko noonu dara newu ca. kii dafay laaj ci oustaz moom itam nee na ñaari rakkay timis ginnaaw bi ñu jullee timis ba pare ñaari rakk yi nga xam ne dañ koy naafila dañ dañ koy yeelal ci ñenn dañ koy yeelu waaye ñenn itam ko war a biral jullee guddi yoo fekk rek dañ koy biral guddee ngi commencé ci bu jant bi soxee moo tax ñi bëgg ñu koy biral waaye naafila gu bëccëg dañ koy yeelu. ba bëccëg mi ngi mi ngi dooree ci gannaaw buñ julee suba ba pare. ko defee kon nag waaye nag lépp luy bu ñu la waxee dañ ko waroon a biral nga yeelu ko dara waru ca jarul sax su jot jéggal nañ la ko. suñ ko waroon a biral suñ ko waroon a yeelu nga dem biral ko tamit jarul su jot. yokk guñ konti wura lañ koy jàppee. ci ci ci ci ci ci yenn yi. ci boo demee ci laxdari indi na loola. Mm. waaw place naafile foofu foofu sax. dafa fa wuteeg farata bu doon farata boo ko yeeloo mbaa nga biral ko ci la place ba laaju da koy sujjootal mhm. fu ñu waroon a yeelu nga biral ci farata da nga koy sujjootal baax da ngaa yokk fu ñu waroon a euh, biralee nga yeelu da ngaa wàññi da ngay sujjoot xab la mais bu dee ci naafila loolu du la ci fekkante dañ la koy jéggal ke yokk buñ konte wut la mhm. jërëjëf Oustaz kii itam nee dafa bëggoon nga tekkil ko sami allahu liman hamida ak rabbana wa lakal hamdu lan lay tekki sami allahu liman hamida mooy yàlla dégg na jaam bi ko sant mhm. rabbana walakal hamdu limuy tekki moy yow yalla mi ya yeeyoo sant motax ñi lay sant ñu ne nam mi ngi baye ko ci sayduna abubakar ak sayyiduna muhammad sayduna abubakar yalla may na ko de ben rak'a ci gannaaw yonentou bi sallallahu alaihi wasallam. ben bis nak mu ñew fekk yonentou bi kabar, jang fatihak sar saar ba rukko mu narona tardé yalla may ko mu kabar rukko rek ba cëram ya dal mu ne man de narona naa torox bi buma faton ci gannaaw yonentou bi xawma fu jëm mu sante yalla ci jot gogo mu jot rak'a bi naroon ko fat waye da ko sante ci xolam rek mais yalla moom yalla mu sirra wa akhfa lu yalla dégg na lu nëbbu rawat na lu nëbboo sante gi gim sante yalla nak ci la yalla yónni jibril ne ko waxal sa jam bi di mu yonantu bi bu sigge rek na annoncer ne man yalla dégg na jam bi ma sante ci la yonantu bi sigge rek annoncer ne sami allah liman hamida yalla dégg na jam bi ko sante de aboubacar xam ne moom mooy ki sante yalla moom tamit mu delloo yàlla sant ne ko rabbana walakal hamdu yow yàlla ngaa xeewoo sant moo tax ma sant la de mhm. foofu la rabbana ka hamdu ak sami allahu liman hamida soqee ko mhm. kon lu baax a baax la am na solo ab julit di ko mën a jëfandikoo macha allah jërëjëf saas kii na dañu ko may soxna yàlla dogal euh, diira ñaari at yoo xamante ni mënul ànd ak soxna si ndax soxna si day wax ne ñëmewul ànd ak moom maanaam wàllum rapport gannaaw si gi nag moom day obligé wu diiraa ñaari at yuy nekk yëpp mosul ànd ak soxna si day wéet di foo ba yëg boppam fo boobu muy foo ba yëg boppam est-ce que dañ ko ci bindal bàkkaar bu rëy rëy sax kay dafay yëfi caaxaan dong ci la ne hmm. yàlla may na la soxna hmm. may la nga war a tuuree sa bànneex ci moom hmm. nga bàyyi ko fa di jëfandikoo sa bopp loolu kay moom bàkkaar bu bër bu bu bu ñaaw la. bu mm. bon la ak mm. nit di timit mënu koo paase. Mm. te yooye bu ci saxee tamit dana ko indil feebar yoo xam ne xamul fu muy jëmee fu muy fu muy jëmee moom. Eh, lislaam fi mu may nga tuur fa sa bànneex mooy koo xam ne yaa ko moom ki jamono jiñ ko doon wax ak sa soxna. waaye leneen lu dul loolu rek. man ni bu taxaa wara azalika fa ulaykumul aaduna la yàlla wax moo na nag fa ulaykumul aaduna nag loolu bon la mooy ñooy ñooy jalgate li leen dagan jëm ci loo xam ne dafa leen a xaraam yooyu nag lu sakkan la kon moo xam da ngaa jëfandikoo sa bopp moo xam ñaari jigéen ñoo xam ne dañuy def sixaaq sëy wala ñaari góor muy liwaat yooyu yëpp ci war a saalika la bokk mm-hmm. ndax li ko yàlla daane mooy aaduna mm-hmm. kon nag na bàyyi yëfi caaxaanam yooyu ak yëfi jëfe yu bon yooyu ak yëfi nitadéem yooya mm-hmm. te jéem a am rapport ak soxnaam te tamit loola muy xeñ boppam di jëfandikoo boppam di ko xeñ soxnaam ñaari bàkkaar la ca jëlee mooy bàkkaaru jëfandikoo gi muy jëfandikoo boppam ak bàkkaar gi muy xeñ boppam soxnaam ci lor gi mu koy lor. Mm-hmm. ñaari bàkkaar yooyu nag bu ko yàlla toppee dana diis ci moom lool. Mm-hmm. mu bàyyi ko xel mu mm-hmm. bàyyi sa xel bu baax. jërëjëf Saas kii dafay laajte moom it nee ma nga réew yàlla dogal amoon na fii soxna ñu am benn doom bu jigéen moog soxna si ñu tàggoo gannaaw si gi nag euh, doom bu jigéen boobu mu amoon ak soxna si am ko koy bëgg si. ñu woo ko moom bàyyi ca bitim réew na ko dafa am kuy bëgg si doom ji mu laaj leen kan la ñu wax ko waaye ka ñu ko wax diinaam doyul ko. nekkul ne nag dafa bañ sëy bi parce que affaire xeet déedéet waaye diine ji ñu wax maanaam booy may nit ki may ko koo xamante ni na la am doy moom gisul ci moom diine jooju looloo tax mu bañ sëy bi gannaaw si gën a woote nañ ne ko mayee nañ doom ji muy laajte ba xam est-ce que sëy boobu dina mu ngi mu si sëy wala moom muy bàyyi tànk d'accordul sëy amul waa ni mu ko waxee su fekkee noonu la demee de hmm. kon sëy ba du mën a am ndax kilifa dafa am doole hmm. ci sëy rawatina kilifa bàyyi ci jànq moo ko mën a maye comme mi ngi teew wala fa mu nekk mën nañoo jokkoo ak moom ci loo xam ne lu jàppandi la te fa mu nekk sax mën na mën na jël kilifteef ko jox ko keneen su boobaa nag buñ ko ko xeñee ngir xeeb ko wala ñu xeñ ko ko ngir leneen te moom tamit kim ko bëgg may may dëppoowut ak moom ci diine ndax des des na ko naw ci diineem te li mu wax nekk dëgg ah. kon keneen waru koo maye te waxoon naa la ko léegi yonentoo waxoon ne ida ataakum man tardawna ko mooy su fekkee ne dafa am ku leen di ñaan si ngeen gërëm diineem may leen ko kon lu ñu cay déggee mooy bu ngeen gërëmu diineem bu leen ko may comme nag moom gërëmu diineem ko may bu ko ñeneen demee may ko ngir seen intérêt ak ngir may ko ngir liñ lañ lañ yaakaar ca moom wala ngir may ko ngir xeeb ko moom ci boppam booba sëy charia du ko nangu ndax sëy boo amul kilifa la te yonent bi ne ne sëy boo amul kilifa yàqu na yàqu na yàqu na yàqu na ba mu ñetti yoon Cheikh Ahmed macha allah jërëjëf Oustaz kii itam li muy laaj mooy nee na di sol daal maanaam boo bëggee jàpp sol dàll fan lay wéree. dàll kenn du euh, sol dàll jàpp moom mënta am ci suñu dàll yi dàll yi ñu wax ne mën ngaa jàpp sol dàll yooyu mooy sang sang nag mooy dàll yi day nekk kiwir te kiwir booba tamit der ba bàyyee ci lu laab. Mm. ren di nañ ko te dagan naa lekk leen derab xar wala derab bëy wala derab gëlëm wala derab nag yu mel noona su boobaa nag nga sol ko tamit ngir waaye soloo ko ngir ak noos tey mu mel ni tey nga sol ko di liggéey ah. sol ko tamit heure bu ne ngay summi day xaw a jafe te bi koy sol jàppoon nga jàpp lu mat sëkk ah. ba jàpp la man nga door a sol ñaari dàll yi kon boo tojlewaatee boo raxasee xar-xaram gannaaw raxas loxo masaa bopp koro koroy nopp ba yegg ci tànk bi uh-huh. mën ngaa masa ci kawam nii rek ci lu dul ngay summi dàll ya uh-huh. loola yonent bi santaane na ko xaddis yi ca wàcc sax xëpp na fanweeri xaddis yu teg le masa ci kaw sang uh-huh. kon loola dara néew ci waaye nekkul ne sa dàll yi rek uh, wala sa kawas yii rek saa yoo ko solee bu la neexee mën ngaa masa ci kawam kooka chariatul islaamiya du ko nangu donte nag am na ñu jël kawas yi yegal ko ci ak dal yi nga xamne mom lañu yore sécurité yi di di sol ak yoya mhm. waye sang dal mo nek ci mathabu imam malik sang nak wutee na ak lola cheikh ahmed tidiane mhm. jërëjëf al oustaz sha allah mo melni li ñi mayon ci waxtu jeexna tak xana sant la gërëm la bu baax a baax baax jottali la nuyoo mbokk yi baax yi nga xam ñi baye xel wa groupe jamiatu nasruddin ci ndegal ci njitalul alaaji keba silla naka nonu alaaji omar ñass dafu fu baye ñom ñepp ñinga ci bobule groupe te dila baye xel waye naka nonu alaaji babakar diouf serigne modou gayne borom keman ak bay katim touré ak oustaz babu job ñom ñom ñu ci groupe bobu dila la bay xel ma sha Allah fani wala bok euh, barki dembu yakarna na njitu bu dafa oustaz yi alaji keba li indi ci ay cadeau am solo bunyi wo way ñoñ dara kenn waru ci jitu al oustaz cheikh mahamadou hadi limu liggey ci dara yu mu taxawal ci juma yu mu taxawal kon bu ñu woo ñooñu daara ka ca war a jiitu mooy al oustaz Cheikh Mamadou Laadi di kàddu yoo xam ne daanaka mën naa wax ne semaine bi moo doon waxtaan su fa nga xam ne moo di groupe jamiyatu nasrudin di groupe boo xam ne gëstu xam-xam rek moo fa nekk ci rek la ñuy dox ay nitu diine kese ñoom ñoo fa nekk oustaz ñu ngi ñoom bu baax liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy amal ci diine ji ñu ngi lay jottali itam seen nuyoo di rek kontaan lool ci fi nga xam ne fa nga teg sa tànk ci diine ci liggéey bu am solo bi dëgg-dëgg ay kàddu la yoo xamante ni ñoo ngi koy jot faaw ñu yeggeelu ko yow itam na la daal ñu ñu ngi ñu ngi kontaan bu baax baax ci liggéey bi ngay amal ci diine ji ci tënk rek bàyyi la nga tàggoog mbokk yu baax yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan ci njiitul alaaji si Sylla waaw ñu ngi leen di delloo sant di leen delloo ngërëm moom alaaji si Sylla ak mbooloo mi nekk ci gannaawam yëpp mm-hmm. koo bëggee rek bëggee na la mm-hmm. ndax xol yi ñooy gisante mm-hmm. te gisee xol yi moo ëpp doole gisee jëmm yi kon yal na yàlla defal ko jàmm defal ñu ko ñun ñëpp ak ñi nga xam ne ñu ngi topp waxtaan wi fu ñu mun di nekk ci àdduna bi yàlla defal leen tawfiix defal ñu ko xiir ñu ci boppam def ñu dëgg dëgg jullit may ñu mujj rafet dëpp la ñoo ngërmandeem ak yërmandeem wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi saas jërëjëf mbokk yi baax yi nga xam ne yëre doon siifur numéro baa ngi leen def ci suufu écran bi foofu ngeen di jaareel seen i laaj waaye bu leen fàttee abonné wu ci seen bi waaye itam jëri ngeen jëf gàndu ko te wàcc ndax dëgg dëgg yéen itam jàmbaar ngeen dëgg la oustaz ngi joxe xam-xam bi waaye bu ngeen abonné wu toon partagé leen yëfi du yegg fu mu yegg tey te tey ji maa ngi gëstu rek ñu ngi ci ay vingt-deux mille quelque loolu nag yéen yéen ñu ko may nu ngeen gën a partagé doyul ndax nu abonné yu gën a bëree liggéey bi gën a di ñas maayam leer na sunu coofel ci moom foor na xam-xamam ba hit wér na way leeleen ma sëñ haadi